salaamaaleykum Serigne Ndiaye Bouna mu ngi nuyu waa Sénégal deux heures pile ci guddi jot na suba ñu war a wat ay élection saa su événement Massalik juf si nag dina Serigne Ndiaye Bouna dina yëkkate ay kàddoom wax waa Sénégal ku nekk jariñu ci li nga xam xamante nii moom laa leen wax ne ngeen teel ko xam 500 communes yi nga xam ñoo nekk ci Sénégal te ëpp ko sax laay wax ak département yi ñoom seen i dem noonu xam ngeen ne Idrissa Seck campagne bii passé waxoon na maanaam bu gagné élection yi. ci nekk dinaa la jox un milliard at mu nekk jox la un milliard loolu nag président Macky sàll ak Idrissa Seck na nañ ko yéene def kon yéen ñi nga xam ne yéen commune yi rekk waaye nguur gi nga xam ne nii moom ngeen war a wooteel yéen ko war parce que su ngeen wooteelu nguur dem wooteel opposition ba opposition boobu nga xam ne moom ngeen wooteel day xam ngeen ne kooku noonu dafay nekk ci xeexam nguur. te nguur du ba du la bañ a defal de waaye nag bala mu laa defal dina defal ka ko wooteel ba pare commune ba ko wooteel ba pare doog laa defal est-ce que kon yow bala mu laa fekk nag maanaam sa sa commune raw misaal gi nga xam ne sit ni Aliou Sall nga fa nga dem Pikine géejewaay raw na ko baax a baax ndax maire ba fa nekk daa ànd ak nguur Pikine nag ka fa nekk da nekk ne opposant loolu rek misaal la ci kon maanaam bu kenn ku nekk di topp naan kii laa fiyee kii ak da seen intérêt milliards yi nga xamante ni pare nañ ko def ci commune yi te nguur fas yéen na ne jàppale il faut yéen tamit ngeen jàppale nguur fas yéene yéen population yi nga xam si yéen nekk ci dëkk yi ak région yi ak communes yeeg euh, département yi ngeen wéetal wootal nguur loolu mooy seen intérêt mooy tax seen réew jëm kanam mooy tax seen dëkk jëm kanam mooy tax ndox am fa courant am fa yaa ngi bañ a topp rek sama xol naan damay opposo damay nox opposo opposo ci maire ci lenn la nga koy def opposo ci ay élection présidentielle wala nga opposo ci ay député wala yu mel noonu mais mais élection maire yi yi gox bala mooy sama fii daa war a am tëli daa war a am ndox daa war a am courant te xam ngeen ne nguur rek moo ko boobaa nguur bu maire bi ñëwee ci nguur daana ko man de aw ma doole ndax li may fay juuti wala li may nangam nangam loolu mënul ma dara ah, mu jox ma mi jox ma ay milliards ma defal sama ay tëli sama ndox sama courant boobaa nguur da koy def ndax sama askan bëgg nañ la boobaa nguur da koy def looloo tax ma leen ñaax Serigne Ndiaye bu ne di leen encouragé ci maanaam ngeen bañ a topp opposition bi nga xam ne sit nii dañuy jëbal sit wax loo xam sit nii dara amu ci da ngeen seet seen intérêt personnel ak mën a mën a astafurla seen ri dëkk ak seen intérêt bopp réew yaa ngi dégg ak seen intérêt gox bu ko defee daal di wooteel ki nga xam sit ni moo am moo moo nekk ca gox bu juddoo fu màggee fa yaroo ba pare ngeen gis ko mu nekk koo xam ku bëgg gox ba gis muy def ay ay résultats ndax kenn bu nekk xam nga ka dëkk ca gox ba ka am njariñ ak